alors euh, euh, euh, euh structure euh, Best Joloma. qu'est-ce que ah diplôme. Ah. man war naa Joloma yàlla baax na ay qu'est-ce ce que ça veut dire Fatou. alors déjà Best Diplôme bu ñu xoolee un peu donc le terme c'est c'est c'est c'est en anglais moom mooy euh, euh, euh, meilleur diplomate c'est-à-dire donc ay ay nit ñu nga xamee ne que dañ leen di former ngir ñu mën a am tuuti xam-xam donc mm. jëmale ci lu waju ci wàllum diplomatie donc bu ñuy wax diplomatie nag je pense que jamono bii ñu toll Salma yaakaar naa Sénégal bokkoon na ci réew yi nga xam wala boog bokk na xaw ma bokkoon na xaw ma bokk na laa war a wax ah. façon ci réew yi nga xame ne que maanaam en Afrique wala bokk dans le monde dañuy faral doon doon tàccu seen diplomatie à travers donc bokkatuñ si. da nga leen ci génne quoi. <laughs> waaw ah, dafa mel ni de. <laughs> alors d' donc bokkoon na ci euh, réew yu nga xamee ne que sérieusement donc loo ju ci wàllum diplomatie alors buñ ci wax rek donc faw ñu tudd ci seen tour donc à travers donc fële nga xam ne moom mooy Nations Unies ak Union africaine ak yeneen ci ay structure yoo xamee ne dafay yëngu ci euh, wàll wi on se rappelle donc une personne boo xamee ne que ñun en tant que ay ndaw en tant que étudiant au suñu xel da daan dem ci moom moom mooy euh, mhm. de affaires étrangères bi nga xam ne moo gënoon yàgg ci mhm. euh, ci nguuru euh, euh, gi nga xam ne moom mooy bu président Macky Sall mhm. il a fait pratiquement neuf ans ci alors boppu kii ba mhm. donc c'était pour dire que dëkk la boo xamee ne que suñu suñu diplomatie suñu borom defoon na ne que maanaam bëri na sax ci ay intervention yoo xamee ne que dana am en Afrique sinon donc maanaam ay situation yoo xamee ne que lu waaju ci guerre ak yeneen ci yu ni mel donc yooyu c'est des détails yoo xamee am solo parce que dafay yokk bi dafay yokk un peu alors euh, euh, euh, bi dafay gën am doole day gën am cachet bi day gën am solo ci maanaam aspect alors au niveau international donc pour dire que il est intéressant voire obligatoire que kenn ku ci nekk donc ci suñu dëkk yi nga xamee ne que amaguñu alors benn poigne bi au niveau international bu mu waxee mm. international moom mooy je parle de des Nations Unies alors ñu gën taxaw ci wàll woowu nga nag la symbiose symbiose de toutes ces bonnes pratiques nga xamee ne mu ngi am ci biir dëkk yi le respect de la le respect de euh, alors de de ce qu'on appelle euh, le respect de son prochain le mm. respect de ce qu'on appelle le calendrier électoral le respect de ce qu'on appelle donc euh, de la démocratie ak mm. yeneen ci ay respect de la souveraineté populaire souveraineté populaire entre autres merci bi merci beaucoup yooyu c'est des aspects yoo xamee ne que bu ñu koy faral di dégg dañ koy ci biir dëkk dafay gën a yokk alors respect bi nga xam ne que au niveau international dafay loolu xoolee ces derniers temps euh, li ñuy faral di gis ci euh, médias internationaux yi nga xamee ne que ils sont influents et puissants. Mm. ñu koy wax ci Sénégal à travers entre le premier juin ak ba fa ñu toll nii. alors dafa daram rafetatu rafetatul dans une certaine mesure boo demee ba un état di di xëy di bind communiqué pour démentir un organe de ah, presse. xam nga ça veut dire que véritablement l'état sa dëkk boobu véritablement wàcc na boppam à point boo xamee ne nit ñi xaaruñu ko fa woon quoi boo demee aussi ba police def conférence de presse beneen réew teleem def def def conférence wala boog def taxaw décortiquer hmm. donc euh, alors li nga xamee moom mooy li fa li li fa jot a joxe comme information pour dire que demeewul noonu hmm. cest à yooyu yëpp c'est des termes yoo xamee yóbbu la fact yoo xamee ne que dafay <laughs> wàcce ah alors dayo wala boog crédit bi nga xamee moom mooy bi dëkk bi am essayer donc de se rapprocher à travers donc benn structure bu ñu wax euh, euh, best diplôme alors euh, ay ndaw lañ ñu nga xamee ne que ils son rat affilier ak li nga xamee moom mooy Nations Unies ñuy former ay jeunes africains ñu am un peu ce qu'on appelle donc l'esprit diplômant comprendre nga pour jéem a défenseur ba xale yi ñi nga xam ne c'est des jeunes africains jóge ci réew yu bari ñu leen di dajale ay sessions de formation donc euh, kenn ci ñoom nga xamee ne bokk na ci ñu ñuy defal ay formation boobu ak léegi. Mhm. Euh, mu ngi basé aux États-Unis donc il répond sous le nom de Amath Mbaye donc euh, si c'est bon mën nañ suivre la vidéo bi nga xam jot na ko def pour expliquer un peu la structure ak lan mooy li nga xam ne moom mooy li ñu li ñu jot a def ak fi mu toll nii lan mooy li ñu am yéene. Mhm. def pour la formation jëmale ci wàllu wi amaat mbay maa ngi tudd Amath Ndiaye entrepreneur ingénieur et ambassadeur euh, du Sénégal dans Best Diplomate man la directeur général benn société bu ñu wax MTH Group MTH Group nag euh, moo ngi def euh, ñetti fànn benn fànn bi mooy ñoo ngi def ñoo ngi yëngu si wàllum création des applications application mobile application web ak tamit audit site web en continue et en sécurité am nañu licence bu ñu tuddee Amadeus depuis plus de cinq mois déjà donc loolu mooy MTH Group en tant que directeur général de MTS Group. Ah, ñun nag ñoo ngi jàppale ndaw yi ndaw yoo xamante ne ñoo ngi bëgg a entreprendre yore seen yëfu bopp en général nag euh, ñoo ngi euh, jàppale ñoo xamante ne tey ñoo ngi liggéeyee si benn bërëb bëgg a bàyyi liggéey boobu noonu pour liggéeyee feneen. donc yooyu noonu nag pour nga def ko donc dafa laaj ay euh, ay normal tànk yu yu doy waar yoo xamante ne il faut que nit jeunes yu bëri def ko suñ ko def ko rek tam ñu échoué voilà don ñun nag si loolu ñuy jàppale yenn jeunes yi pour ñu mën a entreprendre. beneen fànn bi aussi mooy que ni euh, ndaw yoo xamante ne tey bëgg nañu voyager ci dëkk bu nekk si àdduna représenté Sénégal ñun mën lañ la jàppali si wàllum ay conférences yi ay forum yi ak tamit affaire de diplomatie yi ak même élèves yi ak étudiants yoo xamante ne tey ñu ngi bëgg a représenté seen dëkk si wàllum conférence yoo xamante ne ndaw yi dañ fay daje. en tant que ambassadeur nag euh, Sénégal dans Best Diplomate bu Nations Unies voilà donc euh, vraiment honneur la su ñun ñuy représenté Sénégal fu nekk si àdduna. te si loolu noonu nag wax dëgg permettre nañu tey ñu am loo xamante ne euh, euh, am ñu gis-gisu diplomatie am nañu aussi benn esprit boo xamante ne tey ñaari dëkk suñu amee problème nan ñuy fexe tey ba ñaari dëkk dëkk yi waxtaan ba juboo voilà loolu mooy wàllum diplomatie bi. et si loolu noonu tax na tey ba nga xamante ne jeunes yu bëri tey ñoo ngi daje fu nekk si àdduna pour mën a rencontrer di waxtaan donc ay opportunité la ma siy wax nag ndawu Sénégal yëpp ñu mën a participer si événement yooyu noonu tey pour représenter Sénégal. fu nekk si àdduna te ñu ñoo ngi fi pour jàpp. di euh, euh, euh, Ndiaye am solo Amath Ndiaye. d' donc maa ngi wax Amath Mbaye Amath Mbaye rek dama dama dama juum quoi Amath Ndiaye. alors euh, tout à l'heure aussi merci Aïcha ci euh, euh, fàttali bi donc le docteur Cheikh Diane Gadio mhm. donc au lieu de nguuru Macky Sall nguuru président Abdoulaye Wade la woon donc merci beaucoup ci loolu alors donc gis nga vidéo bi alors il était en train d'expliquer lu waaju ci lan mooy li nga xam ne mooy structure bu vrai sens donc pour commencer il a parlé un peu de lui c'était pour dire que maanaam pour nga toll ci niveau bu aju ci moom seen formation yi ñuy amal mm. il faut impérativement que maanaam que que maanaam góorgóorlu nga ba am benn niveau d'étude bi donc am aussi donc possibilité wax français comme ni nga mën a waxee wolof donc loolu aspect bu ci am importance beneen bi moom mooy alors euh, formation session de formation yi pratiquement ñoom dañ koy def euh, pratiquement par trois mois par six mois entre autres et euh, fi koy defee le plus souvent donc ak ay nit ñi nga xamee ne que ay nit ñu ñuy détaché au niveau donc de des Nations Unies ñoom ñooy ñëw pour defal leen un peu les sessions de formation il faut aussi dire que maanaam tout ce qui problème lu aju ci wàllum ñaari dëkk comme ni mu koy waxee donc dañ dañ dañu am ay conflits ñoom ils ont véritablement donc ay stratégies yoo xam dañ leen koy jàngal donc ñu ñu ñu màggaale ak moom parce que boo ko xoolee c'est un jeune garçon qui fait à peine quelques trente ans ah alors donc mu mu mu mu nekk di forger boppam jëmale ci wàllu wi c'est pour dire que alors l'espoir est encore là et ils ont véritablement alors euh, euh, l'esprit donc euh, d'avoir quelque chose donc venant venant de de de des Européens pour le compte de des Africains c'est-à-dire loolu la la relation d'échange bi nga xamee moom moo war am ci ci diggante donc mm. il a aussi euh, parlé de ce qu'on appelle entre guillemets donc les lobbies euh, bu ñuy wax lobby nag le plus souvent c'est dans un sens péjoratif ouais, surtout mais, au Sénégal au, au Sénégal mm-hmm. mais mais mais ci ci biir euh, euh, best diplôme l'aspect lobbying c'est c'est alors la dimension relationnelle bi nga xamee moom moo war a am mm-hmm. entre le mm-hmm. Sénégal la Mauritanie Mali Gambie entre autres c'est-à-dire jéem a ba créer benn réseau encore de jeunes ñu nga xamee ne que c'est des jeunes leaders ñoo xam ne ils seront véritablement aptes pour que ñu mën a mm. teg lu aju ci wàll woowu mos naa benn benn alors dossier boo xamee ne que Alain Foka moom euh, euh, doon wax moom mooy il y a il en train de magnifier euh, li nga xamee moom mooy diggante le les ministères des affaires étrangères donc des pays africains xam nga donc il était en train de dire que du moment où pays africains yi seen ay président ñu ngi dajaloo. di dem Russie di yor ay ay ay euh, euh, euh, bougie ak yu demee noonu xawma ma Ukraine donc euh, moment boobu noonu ñi nga xam ne ñoom ñooy ministre des euh, affaires étrangères des pays africains dajaloo nañ ñoom pour xool naka lañ mën def pour taxawu seen bopp ci euh, bis bu dëkk yooyu téye seen loxo ci wàllu approvisionnement yi doon wax ay blé yu demee noonu. ñoom naka lañ mën def pour alors am benn troc buy am seen diggante mooy maanaam échange boo xam ne dafay am ci seen ay produits. donc c'était important déjà loolu benn aspect la donc peut-être beneen aspect bi nga xam ne fa laay moom mooy alors naka lañ mën a def pour mën a intégrer un peu la structure parce que aussi bu dee dëgg rek neex yàlla xam nga muñ en tout cas man ak candidat la pour mhm. liggéey ci wàllum diplomatie xam nga donc euh, maa ngi nuyu aussi <laughs> waaw candidat la à la an xam nga comme comprendre donc voilà et waaw waaw xam nga donc Assane Gueye aussi véritablement moom moom moom moom Assane Gueye candidat la waaw Assane Gueye serait également un bon profil xanaa day ci tëru rek ba affaire yi romb ko day dem formation war a concentré wu ci li nga xam ne moom la ñuy wax ci wàllu ah, diplomatie. d'accord Assane il fait la beau gosse. waaw mais nag bon yàlla ay affaire ba affaire romb. xam gisoo booy bii nii booy booy Amath Ndiaye mi xam nga kii simple dafa xaw waane. waaw mais affaire yooyu dafa ànd ak yooyu ànd ak yooyu. li ay wolof xam ne ay anglais lay am te dégguma yooyu waaye nekk candidat. <laughs> aussi euh, euh, Salma. Mm. il est intéressant aussi ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, le ministère des affaires étrangères. Mm. que ñoom en tant que structure ñu jéem a rapproché wu ci dëkk yooyu noonu si en tout cas ñoom seen structure best diplômant jéem a daje ja euh, maanaam rapproché aussi. mais et puis euh, Pathé foofu foofu mhm. loolu laa la a laaj sax ndax mhm. dañu nekk en collaboration. Mhm. ak ministère des affaires étrangères wala l' état du Sénégal euh, en général comment ça se passe. comment est ce que ça se passe moom mooy ñoom ils sont rattachés directement ci li nga xam ne moom mooy les Nations Unies. d' à dire ñoom alors tu viens nga am le potentiel bi nga xam moom mooy bi nga war donc ce sont ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci ci biir structure bi ñoom ñooy le le link ak euh, ñi nga xam ñoom ñooy def la la les pour que ñu nga mën a participer ci formation yi donc euh, foofu peut foofu la blocage bi nekk cest li li a am loo xam ne dafa war a am impact ci ci réew il est normal que ñi nga xam ñoom ñooy def la ñoom ñooy def passerelle bi en tout cas mhm. entre structures yooyu nga xam ne ils à l'extérieur ak euh, réew mi mhm. ñu boole ci aussi donc les ministères su fekkee ni aussi donc ci lañ ci mën a gis suñu bopp parce a une manière de travailler au nom d'un pays mhm. te alors dëkk boobu donc amul euh, maanaam euh, collaboration bi nga xam moom mooy bi ci bi war donc euh, loolu peut dina baax ñu gën ci bàyyi xel mais aussi euh, pour euh, les adhésions ñi nga xamee ne que maam ils ont véritablement envie pour ñu bokk ci structure bi am yéene véritablement yokk seen niveau jëmale ci xew-xewu àdduna wala bu xew-xewu jamono. pour mm-hmm. mën a taxaw sa bopp taxawu sa réew alors euh, am nañ site internet bu tudd best diploma donc point point com. 1 si je me trompe c'est ça donc boo duggee sur internet boo bindee best diplôme rek automatiquement nañ la la structure pour nga mën a inscrire ou alors euh, postuler en tout cas joxe sa profil ak bu nga gën a xam autant pour structure bi lan ak la la mën a apporter donc euh, à défaut de ça aussi dinañ jéem def ba entrer en contact ak eux alors euh, seen possibilité yi ñu ci mën a am en tout cas nañ ko mën a def ci puisque là dina xaw a ak direct bi pour ñu a joxe toutes les ci sunu euh, euh, compte réseaux sociaux yi certainement nañ ci def donc des liens ou bien des vidéos pour ngeen mën a gën a comprendre donc euh, Salma donc de manière lii lañ bëggoon andi ci wàllu bes diplôme structure boobu la mm. c'est assez intéressant pour que ndaw ñi ñu bañ a yemale seen bopp que Sénégal xam nga euh, parce que euh, ouverture boobu noonu nga xamee ne que nit ki daf ko war a am. mais est-ce que est-ce mhm. que dinañuy faral di jàngal ndaw bi mhm. wala di ko former. Mhm. sur comment être un diplomate. un diplomate parce que tey mën nañ la mën nga mën nga aparte mën nga aspirer. ëllëg plus tard à gérer un pays boo koy gérer. naka ngay nekkee un véritable diplomate naka ngay nekkee un véritable démocrate bu ko defee mhm. jafe-jafe yu bëri yu nga xamante ni dañ koy gis ci pays africain yi rawatina au Sénégal ñu mën ko taxaw léegi juste dama lay liiral benn benn aspect rek ci yi nga xamee ne que moom mooy yi nga pour par ñëw ci li nga wax mu ne donc euh, euh elle sert de plateforme au jeunes leaders et aux acteurs du changement pour échanger des idées pour partager des idées et résoudre donc les problèmes mondiaux les plus difficiles. Alors ces simulations, je dis bien simulations diplomatiques sont en moins sont au moins euh, donc euh, idéales pour les futurs diplomates en herbe et saisir sinon de saisir et de maîtriser les compétences en matière de lobbying et de pensée euh, critique qui leur permettront de devenir le meilleur diplomate. Mm. Pour dire que alors euh, ñoom ñu ngi nekk ci circonstance bi ngay wax ñu cest à dañ lay tegal ay cas spécifiques yoo xam ne moom mooy yi am nii présentement donc après ñu andil ay stratégie yoo xam ne war na mën a nekk yow en tant que ndaw mm. en tant qu'une personne nga jéem a développé jëmale ci wàllu noonu d'où mm. ils ont parlé donc ay euh, euh, simulation cest à moom mm-hmm. mooy exemple boo defee boo nekkee un étudiant en droit par exemple mm. dañ lay tegal ay cas pratiques mm-hmm. xam nga en en droit par exemple dañ lay tegal ay cas pratiques mm-hmm. ne la circonstance bi nii ak nii ak nii la demee taxawal nga résoudre ko selon li ñu la jàngal comprendre que donc ça ça revient donc à la dimension donc euh, sinon aspect simulation boobu nga xamee mhm. moom mooy bi ñu wax a aussi parlé de alors euh, lii mu ngi lay servir donc nga jéem def en en sorte nga dire lépp dafay aju ci actualité wu àdduna wërngal kap mhm. y yu sa réew yow yaa jéem a taxaw en position de de d' ambassadeur. Mhm. comme moom ni ñu mhm. ngay taxaw di di défendre circonstance wala bokk sa dëkk par rapport ak yenn situation yi nga xam ne moom mooy mhm. moom mooy yii di yii di yii di am. ci cas pratique yoo xam ne moom mooy. yi ñu leen di tegal ñoo waaw maanaam Sénégal nag xam nga Aïssa mu ngi si ayoo di wax nañ ñëw jubaale Sonko Sonko <laughs> ah, ak Macky mais loolu. c' pas un problème loolu du diplomatie loolu c' est c' dans la circonscription du euh, pays quoi bu Sénégal. Sénégal mais la diplomatie en partie wala en plus grande partie donc c'est c'est entre un pays un pays et une structure extérieure mm-hmm. ah, entre un pays et un pays léegi nag jafe-jafe xeebuñu kenn <laughs> sonn naa de. tous les moyens sont bons. Mm. vraiment pour faire s'asseoir Macky Sall ak Ousmane Sonko. mais ñaar dañ ko mën tax waaye dialogue bi Macky Sall la woon mais mais lu ne mën na am fi mu toll nii réew mi lu ne mën na am de mën na jéeg saa rek am possibilité toog boo toog boobu am. xam nga mais ñu ngi ciy nuyu aussi alors euh, ki nga xamee ne que moom mooy euh, euh, Alioune Tine ah. vraiment c'est grand monsieur boo xamee ne lu ne mën na ko lijjantir yéeroon la te mu ngi woon peut être ci tànk yooyu noonu nañ ko bàyyi xel bu mm. baax a baax seet que nag Sénégal dafa bëri ay nit ñu nga xamee ne wax fi yombul wax fi yombul yaakaar mm. wax naa ko passé wax fi yombul mm. moom da ngay wax loo xamee ne que ànd nag sëriñ euh, Mbaye Babacar rek Mbaye Babacar ne la ok yaa nga ca mais su kiiwul rek après Mbaye jël marché bi problème yi démarré comprendre nga problème yi daal démarré donc mu ngi noonu seulement merci beaucoup déjà pour euh, l'attention qu'ils ont que les téléspectateurs ont porté à ce qu'on était en train de dire aussi à yow tamit man damay bëgg say relance quoi parce que relance bi daf lay jox envie nga développer le plus de ce que tu avais dans ta tête ñu nga xamee ne man danoo mm. euh, a tellement d'idées <laughs> les choses day tombé en même temps suñu bopp ba alors dañuy am envie joxe lépp te mm. relance bi daf lay jox envie mm. daf lay jox carrément les points yi nga xam ne moom la gars yi soxla mm, voilà jërë ngeen jëf donc maa ngi kontaan mm. euh, ci euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy ñi ñu suivre donc vers l'étranger mm-hmm. xam nga ku mel ni kii nii la Amath euh, Ndiaye la véritablement c'est un bon garçon koo xamee ne que véritablement xamuma ko mm-hmm. je pense que li ñuy échanger sax sur sur sur les réseaux sociaux moom mooy ëpp que li ñu suñu gisee. bien évidemment donc mu ngi noonu. Mm. Mm. donc merci et pour ñi nga xam ne ils ont ils mm-hmm. am yéene aussi participer ci petit déj ci rubrique bi précisément. Mm. mais on est ouvert pour que ñu def comme format bi nga xam ne que saa jot na ko def. merci à Mamadou Sembène donc bu service de mines merci à Mamadou euh, Niambay mm-hmm. mais aussi maa ngi waxoon lu aju ci wàllum euh, émigration clandestine la fois passée. Mm-hmm. Rufisque mu am ay jëye yoo xamee ne jot na fa am ay doomi aadama lu ëpp dix personnes yoo xam ne jot nañ fa génn àdduna. Mm-hmm. mais euh, euh, am na ay kilifa yoo xamee ne que duñu amuñu ndomba tànk amuñu élection amuñu nomination amuñu dara mais jël nañ seen xaalis ñu fay seen seen dagg seen ticket. Mm-hmm. jël avion dem ba Maroc pour fekk fa ñi nga xamee ne que c'est des rescapés. xam nga jéem a xool naka la ñu leen pour andi. loolu rafet na donc pense à Lamine Diop Euh, c'est un président waaye ani Mamadou kii moom laay wax Mamadou Niambay Mamadou Niambay sama waa ji koy nuyu baax a ba dinañ na ñëw instant bi xale yi soxla nañu ko bachelier yi mais le le grand Mamadou Niambay dégg nga Aïssa Diakhaté non mais ma terminer pour dire euh, ma Mbaye Ndiaye am bi ak euh, Lamine Diop

alors mi ngi noonu di la jaajëfal ñu jëlee tout de suite li dem ba daal di dikkaat. alors way ak taggaate dañuy waxtaanee comme ni ko euh, mbay Babacar Seye